asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil aalamiin. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala aalihi wa ashaabihi wa man waalaahu ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته على الإطلاق شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الشيخ الحاج إبراهيم النس بقي nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu xarit suñu soppee di góor yàlla bu sell bu tedd di général bu màgg di toolu Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu di yarekat bu mag di borom xam-xam bu Cheikh Ousmane Deme nga xam ne dootul ko ñuy présenté fii ci Sénégal. ngir liggéeyam bu kawe bi nga xam ne mu ngi koy def ci ndaw ñi di leen teete di leen jubal di leen teg ci siraatal mustaqim ndaw yi nga ay junney junney yu ni ñoom fii ci réew mi ak ci bitim réew yàlla def na ñu jaar ci loxoom bu sell mu def ci ñoom li nga xam ne moom la nampee ci Cheikh Mouhamed Darami te Cheikh Mouhamed Darami nampee ko ci Cheikh Hassan Deme te Cheikh ko ci Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu loolu lépp mooy bëggeel ak dëggu ak ak liggéey. mbooloo mi fa tabaarakallah li muy bëri bëri ñoom ñëpp seen kiiraay seen diggante ak seen borom lu daj la ñu ngi wéetal yàlla ci jaam ñu ngi jàng alquran ñu xam-xam ñu tabax ay zaawiya ak ay juma ñu taxawal ay daara waaye ci seen wàll àddina desuñ ginnaaw maanaam li nga xam ne moom la ñu wax drawche mooy sufiyanke yi nga xam ne ñoom dañuy nekk ci xalwa yi dëkkee ko dëkk ci àll yi nekk ci seen fanaaw yooyu nga xam ne ñoom seen bopp rek lañ mën jëriñ ci loolu ñuy yëg mënuñoo jëriñ kenn dara amuñ dara lu ñuy service la wala seen askan te bàyyi du fa dàq loolu comme gannaaw bu la yoree ba nga jot yàlla da des nag dëgg lépp lu ne nga jox ko xàqam lu ne nga wàccee ko wàcc waayam di góorgóorlu di liggéey di yàlla di tabax di def lu baax di ko wax di góorgóorlu ci jihaat ak sa bakkan bakkan bi nga xam ne heure boo ko demee ba foog ne dee rek mu génnee ci beneen melo loolu dañ di xeex ak moom ba àgg ci la bàyyi waxoon ngi xool doomi aadama jomb na nit di ko xoolee doomi aadama boobu di ko bañ xale yi ngeen gis yëpp ci loolu lañ nekk wéttu wuñ benn wëli yàlla mbële xale yi di teg ci siraatal mustaqim lii moo loolu la ko Dakar ba fi mu ñëw seet liggéey bi nga xam na def na ko ci toolu sëriñam Cheikh Hassan Deme radiyallahu taala anhu nga xam ne bàyyee ko wax ne ko kaay nga toog fii nekk njaati gi képp kuy waxal tubaab bal képp ku ñëw di sàkku xam ak yàlla nekkal njaati gi moom tey mu nekk ci tool boobu di liggéey ba bokk ci njaati gi yi gën a mag njaati gi yooyu nga xam ne Cheikh Hassan Deme moo leen xelal boppam. ndax tey amul kenn koo xam ne da nga jugee kër Cheikh Hassane dem dem fu neex ci Sénégal lu dul ne boo demee da am ku la dalal kon dama koy wax ne ko ñun buñ demoon ba nga bon sax buñ la xalaatee duñ ko ñemee ndax fuñ dugg ci Sénégal rek am ku ñëw nañu ñun taalibe Baye Ousmane ñu nga ci àddina tàllal ay loxoom weer ñu yàlla def na it suñoo dox ba gis taalibe boo xam ne mi ngi si sikarat bi ko tux wala mi ngi téye butéel naan wala mi ngi xeex met yi wala mi ngi def beneen lu dul loolu kon dañ koy ndokkeel bu baax a baax a baax ci liggéey bu màgg bii nga xam ne def na ko lii preuve la ci c'est suñ xamante ak moom léegi tey mu yàgg teewee naa fii ci xadaraam jëkkul jumaa wasifa boobu ba léegi mu sàmm ko lële xam naa ko ci mbaax ak bëgg xam-xam ak bëgg lu baax ak bëgg nit baax ñi boo demee ci Baye Daouda Baye Doudou si jaan yi dégg nga ñëpp Baye Moussa dëkk yi ci ñëpp ci lii mooy école Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu hmm. école boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon borom école bi wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen ndax ragal yàlla mooy caabi lépp lépp looy sàkku boo ko sàkkoo ci ragal yàlla yàlla bu la ko joxee dana la ko téyel ko comme wàcce la loolu boo bëggee alal boo ragalee yàlla yàlla jox la ko soo bëggee wilaaya boo ragalee yàlla mu may la ko soo bëggee texe texe lépp mu ci ragal yàlla boo nekkee ci xat-xat boo ragalee yàlla yàlla génne la ci xat-xat yi ndax sidina Ibrahim nekkoon na ci xat-xat ñu taal safara sànni ko ci malaaka mi ñëw ne ko ndax am nga soxla boo may yóbbante ci sa borom mu ne ko suma digganteeg sama borom xajoo ci du ma ko laaj dara it ndax man xaritam laa xam ngim xam man li ma soxla loolu doy na ma naka noonu yonent yàlla ko sànnee ci teen bi naka noonu ba mu génnee ba dugg ko fekk ak dégg nga noonu yëpp dégg nga euh, ay kurus la yoo xamante ne ni baax ñi war nañ koo jàng di ko xam loolu moo waral yàlla maye góor yu mel ni Cheikh Ousmane di taxaw nekk ay jàmbaar nekk ay njiit nekk ay kenn yoo xam ne dañuy dimbale ndaw ñi ci leen jàpp ngir yóbbu ci kuréel yàlla kenn Cheikh Ibrahim wax naa ne lii mooy école ñu bëri nag ci Sénégal dañoo xaw a réeré Cheikh Ibrahima dañu dégg bàyyi bàyyi ñeseen ñeseen ñeseen bàyyi indiwut diine bu bees bàyyi indiwut tariqa bu bees bàyyi jullit la sunni la bàyyi bu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la di ko roy yonent bi mooy imaamam wax na ne bëgg naa ko bëgg goo xam ne fu mu teg tànkam teggi ma teg fa sama tànk isa saara xayru nnaasi sirtu waraahu fa in xalla yowman fal masiru baidu bàyyi waxoon na yonent bu yàlla la waaye wax na ne yàlla lépp lu am may na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yonent bi mooy buntu yàlla ku jaarut yonent bi doo àgg ci yàlla waaye moom bàyyi mooy buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg a dugg ci yoon bi ci moom ngay jaar da ngay dégg ñu naan ñi seen ñi seen ñes sant la bu tariqa tariqa bàyyi mooy tariqa tijaani bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox Cheikh Ahmad Tijaani ci lu dul nelaw Cheikh Tijaani waliyu la boo xam ne tukki na ci réewu arab yëpp fu mu dem ut na fa sëriñ jàpp na ci moom gërëm na ci moom jël na ay tariqa ñu mel ni qaadiriya chaadiliya naqshbandiya nasiriya yëpp jàpp na ko waaye lépp bëggoon ci tariqa yooyu amu ko boo di bii dajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko daa kulla cheikhika wa dar anaamu rabbika wa cheikhuka al abar bàyyil sëriñ yi nga jàppoon bàyyil tariqa yi maa ngi sa sëriñ man ki lay yàlla ci la ko joxee tariqa bii ne ko tariqa bii nag jàpp ko ku la ko laaj jox ko ko képp ku jàpp tariqa bi da texe ci àddina da nga texe ci àllaaxira sax si yaa ko du woon nangu yow yonent bi jël tariqa bi fay garanti loo ma ne ma tariqa bi ñi nga xam ne ay mooykat yi yàlla leen buñ jàppee tariqa bi tariqa bi dana nekk buum ak mucc ci ñoom yonent bi ne ko garanti naa loolu sax si yaa ne dogu mu jox ko tariqa bi moo tax tariqa bi li ci nekk ci gëneel loolu xel munu koo natale moo tax Cheikh mu ne tampoo tariqa bi dana yéeg tampoo tariqa yëpp waaye benn tampoo du ko féete kaw moo tax ba mu feeñee ba léegi beneen tariqa dootu feeñ gën a rëy tariqa Tidiane yëpp bàyyi ci tariqa boobu nekk jële bu mu njëkk a taarix muy lam ca njëkk a digle mooy nasihatun minni ila ixwani fal tumsiku tariqata tijani tariqa mahad alfadli wa ridwani ussisa bi sunnati wal furqani maa ngi leen di dénk yéen samay mbokk ngeen jàpp tariqa bi ndax mooy tariqa boo xam ne léppam ngëneel la ak ngërmaane yàlla tariqa la boo xam ne amul bidaa bidaa mooy luy sos loo xam ne amul fondement ci lislaam ndax lépp ci alquran ak sunna rek lañ ko sos ndax istigfaar la salaatu ala nabi ak laa ilaha illallah suba ak ngoon ak dajaloo wasifa loolu yëpp mën nga ko indi ci alquran mën nga ko indi ci xadis yow yàlla wax na wa qultu istagfiru rabbakum innahu kaana gaffaara yursil samaa aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin alquran la yonent bi nee na wa in wa inni la yughaalu ala qalbi fa astagfirullaha fi l-yawmi sab'iina marra man danay baru yàlla bis bu nekk juróom-ñaar fukk ba neen waaye mu ne téeméer boo ñëwee ci salaatu ala nabi yàlla amul dara lu mu santaane def ko lu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ci xadis yonent bi nee na man salla alayhi salatan waxidatan sallallahu alayhi biha ashran wa man salla alayhi ashran sallallahu alayhi mi'atan wa man salla alayhi mi'atan sallallahu alayhi alfa wa man salla alayhi alfan zaaxamat katifuhu katifi ala babi janna ku julli ci man benn yàlla julli ci yow fukk ku julli ci man fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci man téeméer yàlla julli ci yow junne ku julli ci man junne sa mbagg ak sama mbagg ba kër àjjana te tijaani bi xoolal bis bu nekk ñaata yoon lay balu yàlla ñaata yoon lay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illa allah yàlla na fazkuruni azkurkum tudd leen ma ma tudd leen kon alquran la wazkurullah fazkurullah dikran wazkurullah dikran kathira tudd leen yàlla tudd ju bëri bàyyi mën a lu bëri ci yàlla bëri na lool waaye man garanti naa suma taalibe mu àgg ci bañ a bëri boobu fekk tudd yàlla ci zikkar yi suba ak ngoon alquran waskurullaha bukratan wa ashiya dégg nga amma def ko ci mbooloo mun na ci alquran wasbir nafsaka ma'a alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu yow yonent bi muñal toog ak ñi nga xam ne ñu ngi tudd seen borom ci suba ak loolu jël ko ci ndigal wa daa'iyan ila llahi bi idnihi wa siraajan muniira ko da ngay gis tariqa bi lépp am na gis day ci alquran ak sunna kon amul dara dañ ci wax na lii bidaa la wala lii dum sos la wala naka ma naka ma naka wala bu nekk nag dinañ la sosal sosal leen Cheikh Tidiane ne dafa indi sawaat boo xam ne wax na ne moo gën alquran Cheikh Tidiane mos sa wax ne salaatul fatihi moo gën alquran te salaatul fatihi wàccu ci Cheikh Tidiane ci imam al Bakri la wàcc wali boo xam ne moo jiitu Cheikh Ahmad Tidiane kooku nee na salaatul fatihi nga ne lu ci nekk ko jàng benn yoon ci sa dund yawmal qiyaama ci boo naree dugg safara nag ma ko ñemaan waxoon ne moo gën alquran alquran amul dara lu ko gën waaye def ne am na ñoo xam ne jàng salaatul fatihi moo gën ci seen xàq jàng alquran ndax nit mën naa jàng alquran te fekk alquran mu ngi koy ndax koo xam ne mën naa jàng alxuraan xam lu alxuraan di digle ak lu muy tere muy jàng alxuraan te faalewul digle yi faalewul tere yi kooku heure buy jàng alxuraan alxuraan na koy rëbbu kon kooku ñàkk moo gën ci moom ci jàng alxuraan ci chance boobu la ko waxee waxul ne salaatul faatihi moo gën alxuraan dégg euh, <coughs> tariqa boobu bàyyi ci la nekk ba ni muy génnee àddina testament bu mu bind ci mujjee dundam lam ca mujjee bind mooy leen fa aleykum bil wirdi laazimi fa innahu kanzul ahyaai wal amwaat na ngeen tariqa bi ngeen fonk laazim ndax ñiy dund ak ñiy dee amuñ lu ëpp yaakaar ci wërdu laazim bi ni ko kooku mës a tariqa bi tariqa bi ci la dund ci la génnee ci biir tariqa bi dafa am loo xam ne jagle la loolu bàyyi waxu ko Cheikh Tidiane moo ko wax te lu mu wax dëgg la ci mujj dundam ne tëddi faydatun ala ashaabi xatta yadxula annaasu fi tariqatina afwaajan afwaajan wa tati hadihi alfayda wannaasu fi gaayati ma yakununa alayhi min addiq wa shifa dana am lu ñu naan faydu dana ñëw faydu nag dégg nga leer la boo xamante ne ni yàlla daf koy jox borom faydu muy leer goo xam ne daf koy leeralal digganteem ak boromam waaye daf koy mën a transformé ci ko leeralee nit ñi seen diggante seen borom pour ñu mën a kiira yi nga xam ne moo dox seen diggante ak seen borom mën a seen borom man koo wéetal ci jaamu yàlla mën a am ihsaan bi nga xam ne mooy ñetteelu pàcc ci diina Cheikh Tidiane bu muy wax ne fooru dina ñëw def na dana ci jamono xat-xat ak jamono jafe-jafe ñëpp xam nañ ne 1930 bay bàyyi di woote faju bi diggante ñaari guerre mondiale la kenn ku ne xam na ne àdduna bi du fi nekkoon ci ay jafe-jafe ak yu mel noonu jamono jooju ci la faju bi feeñ ñëpp xam nañ tamit bàyyi lim jàng. abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne kuñ formé war ngay sant yàlla. ñu la digil kese la doom sidi baram